pierre ko la ñu gis ma sa pierre ko ngay gis ma di inshallah ren mo waron di di ko fasé def ndax ren xalaatuma sax nek ci man kassé ah di wër ci koor man kassé di wo lool mom mo jeex man ma bañ ma bayi wépp ci man di wor ci nit man kassé benn ba du wor yoro wor loolu fi jeex ñun ñeppay wax ren loolu ma leen ko wax mun ma tok fi di wor yeen ngeen wal ma taxaw di leen xol ah loolu bu nu ko mali ma so marañ barajé pare nga dama dépense bi ni ko dam ko marañ barajé ba pare kan lay waxal ko du yow ñu eh eh mu jëk fa kaafé mu non mo barek barek yow fa ñu wal way baan amul na saxal ren mom mën eh fa ren eh est ce que juumo juum ci lan da nga juum la fo gis nga ñatt téméri mënul sax togg dogu lenn la la bëgg xamal ren nak ñëppay wor ci kër ñak wor amatu fi de déggoo ma wor wóor wor man wor ma déggoo ma li ma la gis nga mille francs yi moom lañu toggee baxal nga lay fuul rek ko loolu ba pare lu ma sa yow yow wor na la jox sama ñak mi rek yow nga ma ko lek ba ma ni ma ba wax waxti nak ren bu dul xam du may ma man fi la gis man jigéen joo xam ne chaque weeru rek mu ne damay damay gis mbaax nak nag ko weeru lu mu gis

아, 야, 야, 소마지. 마, 얼마지? 얼마지? 우와, 얼마야, 가만야, 이거 봐봐요. 이거 혼나요. 이거, 이거 뭐 삭해요? 그거 삭는 무슨 거? 먼저 뭐 삭해? 얘 무슨 거? 나 얘랑. 와, 얘 보드 깎여 심어 니까? 나 깎여 보드 깎여 가면 여기 약도 좀. 이. Paa bu dambe. la ma gën a wóor ma soo wooyee yaa yaa indi poye. ma wooyee dafa indi ne poye. dafa indi poye bi parce que man boobu nekk di wooye de. wooye ma de man soo yaa yee wooye ma ma de. seen yoon wi aja. naa jaar. ah gis nga suñu jaar bi moom. seen yoon wi naqare naa jaar. ah bés. mu ñaaxa fa. ndeysaan. ñaata fa. ak ma leen am. ah fasu fasu Aliou Guèye wax. ah Mor sa ndaw sa. Mor sa ndaw sa. moo ma ba garage. ah delluwaat kër ga. ah moom moom moo ñu woon indi après. ah yow da ngaa yow xanaa xamoo Mor si. ah Mor bi. ah yooyu daw la mën. na mën naa la nag. daw la mën. maa naroon na dox yoon yi nag. ah Mor sa ndaw sa laa yàgg ak war a. waaw am na ku ndax. bàyyi naa ko xam naa dana dellu kër ga. xam na yoon bi. Ah, loolu injustice. dara mool mool bu ndaw bi mën a yóbbu ba <laughs> mool si daa mën a ndaw daa daa mën. kooku daa mën daa mën. ma la gisee rek nag ndeysaan. sama xel day dem ci démb. mool day dem nga ànd démb ndeysaan. déedéet nag kay ndax. ba ak ki gàlla. yow benn baara. wallaay sama xarita. ndeysaan. nama naa la. mooy yaay maa yow. yow daal yaa ngi nii. ci loo ne. sama télévision. sant nañ télévision réalisateur. ak yow wéy ñu waay ba yàq. du war a baax xew naa kële la xew. baax ci jàmm. Eh, eh, eh, kii mën naa indi xaalis bari ci basket. américain la nama naa la. waaw moom wóor na yaa ko. maa ngi. wóor na yaa yow koy. Ah. soo ñëwee. kii gi day wér. moo tax waaw yow eh nga ma de. dégg naa la maa maa la raw. yow mii koy ba mii koy ñeefee. barke Serigne Touba. dëgg nag moo tax rek ma ne ma ne waaye waaye nag daal daal technique. moom dafa am technique. sewru Ramadan bii nag. Eh. yow sa sa koor gi ni nga koy waxee. sewru Ramadan bii nag. Eh. dafa ne du ma ko wooree fenn fu du ci kër gi. da ngay sama wóorul fekk ya nga. te weer yëpp laa leen fas yéenee waral. Eh. yow ren koor gi. fii laa ko fas yéenee wooree. fii fii fii nga ko war a wooree. fii fii laa ko fas yéenee wooree. nga ñibbiwaat suba wala. kan ak ah, Moussa a damaa ñëw maye daaw dama laa mayoon bonus waaye ren damaa ñëw pour maye lépp. Ah. leen daal xamal naa la. Eh. yow bàyyi saabu jàmbur bi. bàyyi saabu bi. bàyyi boo ko xëccoon jaan màkk la looy wax. bàyyi sop. koor gi ren. Eh. ñëppay bul sonn ok muy mel ni nga di gën jàmm ndox ren moom ñëppay woor surtout la. article bi lii la wàcce deux cent douze. tey sa kaya ak mu bàyyi ak mu bàyyi <laughs> lii laa fekk bi wàcc. loolu nga gis waaw loolu. suñu ji bi suñu ji bi. ah Moussa nekk fu mu ne. ji bi comme daaw ni ñu daan def. ma ne Moussa. waaw waaw nekk fu mu ne ah. Moussa damaa xaw a. dàq koy papa dañ daan dàq koy. ñu daan jot wiir sax damaa toll. papa boobu yéen dàq koy de. dàq xam xam. yaa ngi dégg yow benn baat sa bàyyi mbaw mi tëkku kii euh, yow daal bu mu xatal ma ma tëkk paysan waaw waaw tëkk euh, lu paysan sax c'est kaayis très bien tey sa kaye xam naa sax mooy dugal après euh, karaate tey sa kaye la eh,